jàpp ci dam mooy dëgg jàpp yàlla tudd turam mooy gën gi tudd yàlla jàpp ci dam mooy dëgg jàpp yàlla tudd turam mooy gën gi tudd yàlla jàpp ci dam mooy dëgg jàpp yàlla tudd turam mooy gën gi tudd yàlla

bëgg a sell del dikkar turam wi turam wi dikran kasiiran tey alam melam wi ku bëgg a sell del dikkar turam wi dikran kasiiran tey alam melam wi ذكرا كثيرا تيقلم رمي di ko zikar fi zikri wa tafakkuri ku ko soqoo wat naa ni dootu la sori di ko zikar fi zikri wa tafakkuri ku ko soqoo wat naa ni dootu la sori ma di ko zikar ba janook melaw wi waliyu kaamil moom ma dey turam wi ma di ko zikkar ba janag melam wi gis naa jëmmam ja dégg wax ja wax mu wax ma moom it la wax ma yëg ko du dee ma naa ko namm naa la borom Tuubaa yaakaar ji bëgg naa waaye du tee ko nam du tee mën ko nam naa la borom Tuuba yaakaar ji bëgg naa xam nga ni man jooy cofeel ca laa sax saa xol di jooy saa bët tooy te yaa di kat wi yëg leeram gi buy wuttu jullu day xamal ne xam gi dee leen di ka turam wi yëg leeram gi buy wuttu jullu day xamal ne xam gi dalima ma wax ak a so ay jortu حق اليقين لا تأمضي فتوب محبة العبد القديم وردي ويا لداد العرش خير وردي محبة العبد القديم وردي ويا لداد العرش غير وردي محبة العبد القديم تكفي شرا وأن جلب قيورا تكفي محبة العبد القديم تحتي بركة من بركات المحتي محبة العبد القديم تحتي بركة من بركات المحتي محبة العبد القديم الجنة